Adji Sarr Ousmane Sonko am na fi euh, démb la woon gis nga ne dañ ko renvoyé ba vingt 23 waaye tamit ni mu doxee ni mu maanaam doxalin gi gis nañu Ousmane ko teewewul procès bi nan nga nan nga jàngatee la fait que Ousmane ko teewewul procès bi. Ah. woote ne moom léegi euh, du du yoon daal. waaw xam nga wax na ko mais amu si droit parce que citoyen la te li ma lay wax ci peut-être que yu bari yi boobu ci la bokk. boo bëggee jiite réew. Hmm. nga xam ne boo jiitee réew réewam yaay nekk garder la constitution bëgguloo ëllëg kun woow mu ni du ma wujji yoon parce que ki jiite réew mi tey ban ko wooy defu ko demutoon da ngay waddu say kàddu si yenn yi parce que magistrat yi du ñu ay politiciens ñaareel bi yoon mën nga am loo naqari si moom boo jëlee réew mi nga sens la naqari hmm. waaye képp ko yoon woo da nga war a dem wuuji parce que ñu ñëpp ñoo bokk yam ci yoon parce que ay citoyen lañ te constitution moo ñu tënk ak ay loi ndax moom ni def ni du wuuji yoon man bu ma neexoon def ko ni du mu wuuji yoon bokkul de si lu tax ma ko bokkul xam nga la ko c'est-à-dire di jum yéen yéen a dugg Ousmane parce que boo nee bokkul fan nga teg ni bokkul honorable yow tey jii boo boo ne woon doo wuy ji Ousmane Sonko mii nga xam te ne na wuy mais gis nga takk der yi ngir ñu jege këram rek gis nga askan wi bàyyeekoo fu nekk ñëw. waaw léegi voilà est-ce loolu. voilà xam nga léegi. est-ce man bu ma neexoon. waaw bu ma yoon woowee ma dem toog Touba kenn du ma jël si. wallahi alxasim bu ma yoon woon bu ma neexoon bu ma toogee Touba kenn du ma jël si parce que lu Ousmane Sonko defal Séquence defal naa ko waa Touba te tamit dara suñ Touba laa bokk mais man damay wane chaque jour une bonne exemplaire parce que man dama bëgg nekk candidat bëgg a jiite réew mi bu mu bëggee jiite réew damay wax ni. réew mi mënoo koo jiite te respecté wu institution fii lan ma fekk ma nekk député nekk vice président commission de loi. mois de juin bi passé. ñu jël mi fii sama kër yóbbu ma fi nga xamante ne mooy si kaso bi ma def fa ñaar fukk juróom-ñett. moonte bi mu xamante ne ñi ngay def maanaam war maa jël si defal sama dossier wax nan ma ni ma demal Touba parce que ñi ngi defal sa dossier pour jël si la doo tax dem ma Touba parce que damaa jafe ni lu dul yàlla ak neen nga te nit mënul dellu ëpp ñaar yoon te foo xam ne sa maam duggoon na fa boo fa duggee la wàññi dara sa sa sa sa kii euh, sa sa royukaay ci politique muy président Abdoulaye duggoon na fa ma dem wuy ji muy injustice boobu noonu ma dund ko fi may wax yow sama procès bi nga xamante moom lañ war a def le premier juin bii ñëw nii. dinañ ci ñëw xam nga ñu ngi si war a ñëw. Mhm. le procès le premier juin. mais bu ma neexoon bu Ousmane Sonko ne du nguuj man ne leen yoon bu Ousmane Sonko demul du ma dem parce que ñoo bokk yem ci réew mi te conseil moo mais man damay dem parce que lu tax may dem mooy damaa defe ni defuma loo xamante ne bu ma demee mën na ma si condamné. même buñ ma ci condamné. Mhm. ma xam ne man def naa la ma war a def li mu war a wax naa ko man député la nekk sama session fi may waxee tëjagun. nekk vice président groupe parlementaire kenn mënu ma atte te dindiwoo sa mbalaanu kiraay kenn mënu ko ci àddina hmm. parce que article cinquante et un ci règlement intérieur moo ko wax ak article soixante et un alinéa deux ci constitution bi ñaar yooyu nag nit mënu koo salfaañi nit mënu koo bañ a gis mukk bay àtte député boo xam ne ko yóbboon ay solution di ko taxawal di ko àtte te loolu kiiwul te yàlla dogal na loolu moom nekkul député ba mu nekkee député bi ñu ko wooyee mooy du dem parce que dafa bëggoon ñu dindi bi laanu kiraayam mais man mi waxee am naa ko mais teewul damay dem d' accord kon li fekk la fekk Ousmane Sonko demul yaa ngi koy naqarlu bu baax a baax waaw dama bëgg man uh-huh. man uh-huh. dama bëgg mu dem wuy ji te dinaa ko woo ni ko demal nga wuy ji du bu wujjee uh-huh. mooy gën a mooy gën ci moom mooy gën ci réew mi la fekk mu dem Ziguinchor bu wujjiwul dana métti si moom dana métti si réew mi te du ko jar te jàpp naa ne moom foogoon ci ci bii nii bu fekkente ni am na bu fekkente ni comme nee na hmm. na preuve yoo xam ne wane na ni complot am na hmm. te taxawoon nañ dafa bëgg procès am ndax man wax na ma ni ma na procès am ba ma leeral comme procès am na waaw léegi ko wax na ko na dem leeral ku koy wax naan ko bul wuy ji bëgguloo ko d'accord le fait que mu dem Ziguinchor ñu bëri dañu jàpp ne maanaam boole affaire de ethnie la làqatu ji ci Ziguinchor nga xam te ne gis nañu foofu zone Casamance bi rebelle yeeg et ñu bëri jàpp ne Sonko am na leneen lu laal ci ginnaaw yow est-ce que looy partagé la. man daal li ma xam am na sañ-sañu dem Casamance. waaw waaye tamit bu ñu ko woowee war naa wóy ci. ndax Casamance mooy maire bi Ziguinchor. waaw mais bàyyi ba procès bi di ñëw. waaw mais am na sañ sax xam nga maanaam amul àpp. tey bu ne woon suba la procès bu ko neexee dem dikkaat waaye bu ñu ko woowee na dem wuy ji Ziguinchor moom mooy maire Ziguinchor am na sañ-sañu dem Ziguinchor fa mu nekk ak la mu nekk la mu def loolu concerné wu ma mais la ma jàpp daal di ko ñaan mooy. képp ku mën a wax ak moom nan nga wax ni ko na ñëw wuy si li nga xam mooy procès bi le 23. parce que renvoi définitif la. Ah. il faut que ñu àtte audience spéciale audience spéciale il faut ñu àtte ko. ma koy ñaan moom man dinaa dem teew si procès bi. Ah. le 23. Hmm. bu ma neexee yàlla dinaa dem. Ah, may tam yow lu tax demoo bii nga bëgg a dem. may tam bu man tam bu may àttee may tam bu may àttee la première maa ngi ko ñaan mu ñëw. kon da ngay fan. ci Sonko. man suñu tubaab deful ma bës lan laay dee bës. man bës yow dama ko mën a passé. d'accord mais honorable. man yow bi may xam ma nekk dibi da ngaa xam Sonko. waaw wala déet 2017 bi may nekk député tas ensemble sax nekk meilleur député ana Sonko Sonko 2023 2022 laa ànd ak moom. waaw ah, mais Sonko Sonko depuis 2014 mu ngi. man laa wax 2017 laal wax bi may nekk député xamoo Sonko bi may fekk assemblée nationale may liggéey assemblée nationale ba am maanaam nekk meilleur député ñëpp askan wi xam ma xamoo Sonko Sonko 2014 la tàmbali génn assemblée def candidat 2019 man mi bu ma defoon candidat 2019 bu ma jëlee deuxième wala troisième damay continuer ñu gën ma am. li am man mais buzz bi Sonko am na man man man buzz ak buzz Sonko non non man non non man daal man daal non dama ne dama ne dama jamono ji moom man dama xew man damaa xew te duma xewi parce que sëñ Touba laa àndal ah, il faut que nga bàyyi non non non non non waaw mais dama ne xam nga yow loolu yaa koy wax rek parce que man bi may man bi man bi may bi may falu ñu ne si réseaux yi falu ñu ma man Touba ma fal te Touba xew naa du ma xewi man nekk naa député benn yoon nekk naa député ñaar yoon soxlaatuma mandat député présidence bi laay laaj incha allah 2024 lan hmm. lan la ah? léegi la xam nga daase li ma la wax nii hmm. ci li nga wax noonu hmm. day fekk si ma confirmer li ma waxoon parce que yow da nga defee ne ak ñenn ñi ku bëgg bës da nga ànd ak Sonko ah yow yaa ko wax léegi nii. non non déglu ma rek yow non non non yow yaa confirmé waat moo tax ma ne la ñi mu àndal na kon ñoom dañoo bëgg bës parce que bu doon toon Sonko ñoom du leen xam benn xam bi nii ñoom bu doon sonk mais man damaa siiw avant Sonko ma ñëw ànd ak moom jàppale ko léegi nag la kaa mooy sama continue sama trajectoire bi ma teg sama tànk bu ma ko weddee bu ma ko dindee da ngeen naan Cheikh Abdou nit parce que man dama ni Sonko falu Macky falu laa yemale parce que amu si kenn ku ma mën a jariñ d'accord Sonko mënu yokk Macky mënu ma yokk. kon le 23 di nga dem. le 23 bii ñëw nii. bu neexee yàlla dinaa dem ci procès bi xool seetaan déglu. ndax dégg naa aw dégg naa ay avocat yi nga xamante ni mooy avocat mm, maître Moussa Sarr mhm. mu wax ni waaw avocat maître Moussa Sarr laa wax mu waaw mu ni dossier bi am na ay vidéo waaw léegi yëpp bëgg naa ko déglu wala ma xool comme quoi comme que audience publique la ba xam lan la. kon da a dem pour gëstu ji xool. parce que comme man. parce que toogal. yow aussi askan toogal comme askan wi laa toogal dama xam pour que ma dem. dégg am na benn si salon de massage bu la jóge woon mu ñëw fii <laughs> ñëw sama ko 23e maye kaar waaw loolu am na ne la fa laa jóge woon waaw yow war nga laa ci xam parce que fa laa jóge woon ni ko nekkee bu jógee fenn bu ñëwee tax moo dafa dara <laughs> mais fa laa ah, comme que nee nga maanaam bu fekkoon yow laa jege di la wax kon da ko conseillé ba yéen ba mu ñëwee dinaa man daal ba mu ñëwee nee naa ko waxoon na ko déglu ma rek la ma ko wax wér na te wax naa ko ko waaw nee naa ko dafa très attention parce que gaayan si ginnaaw ñu lay topp wax naa ko ko mu yor benn toit rek di dawal boppam yor benn capuchon bu gris. ah gris. gris waaw mais <coughs> dëgg la de. loolu la gars yi waxoon de. man du ma man du ma fen. Maître El Hadji ñu koy dégg mu naan sol capuchon. couvre man daal loolu dara man daal ay. Ah? ñu ngay tudd ñooñu ñëpp tudd ma la parce que avocat bëjë bëjë yooyu soxlu ma la man li ma wax mooy. li may wax Sonko dugaluma ci ñooñu ngay wax noonu parce que gëwma seeni wax. Ah, mais mais man man dama ni man la ma gëm li ma wax am na te kenn mënu ko weddi ñëw na sama kër trois vingt troisième mois quart capuchon bu giir la soloon moo doon dawalal bopp otoom laaj naa ko muy dafa demoon foofu ma ne ko gaa lay topp fii lan yam man ak moom amul leneen. d'accord mais vidéo yi nga dégg ak ay audio ñu dégg am dossier bi ay page yi page la. te da ñu ne maanaam dañu leen war a may sax cinq jours avocat yi pour ñu mën a lëñ bu baax a baax a baax est-ce que. waaw mais xam nga nag dossier boo xamante am na ñaari at. waaw ku ko war a xam war nga ko xam. wax dëgg yàlla bu fekkente ne xëy na audio yi. dañ koo dugalaat si biir ak vidéo yi yooyu peut-être rek war nañ ko mën a maanaam multiplier. fii ak le 23 parce que loolu yomb na ndax fi mu toll maanaam avocat yi toll nga jël kale yi ESP dugal ko yi benn ba nekk maa matul 10 nga nga copier ko. dossier bi ko ne am nga ko. waaw kon euh, pour man loolu du lay lii lay mooy. bu bis jotee ndaw si nii dañ ko violé. nee na am nay preuve askan waa ngi xaar ay preuve am. ñëw ak ay preuve am Ousmane mi nga xam ne nee na dañ koo complot am nay preuve ni dañ koo complot na ñëw ak ay preuve am yoo xam ne dañ ko complot. looloo jaaxal ñi ñu lu tax jëwul ak ay preuve am. waaw léegi laaj ko ko. Ousmane Sonko waaw. d' accord léegi honorable